accepté de couvrir cette conférence de presse. Autour de la table, nous avons bien sûr le coordinateur des forces vives de la nation F-24, le doyen Momodou Dumbo ici à ma gauche. Et à ma droite, vous avez le vice-coordinateur, M. Aliou Sane. Après lui, vous avez Rita Aliounou, qui est membre du comité exécutif, de même que Yolande Kamara et Sengan Senghor. Moi-même, c'est Abdoulaye Bachili, président de la commission communication, membre du comité exécutif. Cette activité sera introduite euh, en français par le doyen Momodou Mboch, coordonnateur de la plateforme. Et pour la version Wolof, nous aurons Aliou Sané, qui est le vice-coordinateur. D'abord, permettez-nous, bien sûr, après vous, on répondra à, vos questions à la limite du temps disponible. Hein. Et euh, permettez-nous d'abord de prier, c'est-à-dire pour que cette rencontre se passe très bien et pour ce que nous souhaitons de cette rencontre, qu'on l'obtienne. Et prier aussi en la mémoire de nos disparus ces derniers temps, notamment le professeur Malik Diaye et le journaliste Mamles Kamara. Une minute pour eux et chacun en même temps prie dans la confession, dans sa confession, pour que, en tout cas, pour la mémoire de ces disparus et que nos travaux se passent bien. Merci. L'objet de la conférence de presse de F24 de ce 3 mai 2023 est de procéder au lancement de ces activités dont la première se décline en termes de rassemblement populaire le 12 mai 2023. Nous en profitons aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents qui vont signer la charte à la fin de la rencontre. Chers compatriotes, le Sénégal est à la croisée des chemins. La gravité du moment interpelle tout citoyens soucieux de la préservation de la démocratie et de à l'heure où nous tenons cette conférence de presse, les journalistes se mobilisent à la maison Babacar Touré pour faire respecter la liberté de presse rudement éprouvée au Sénégal. Les journalistes en Bastille y ont trouvé Cheikh Mordiagne, Abdou Karim Gueye, Mortal alias Niblof, Bassirou Diomaye Faye, Animal Dim et tant d'autres, dont le seul tort a été d'exprimer une opinion contraire à celle du pouvoir. Le F-24 remercie et encourage les journalistes, hommes politiques, chroniqueurs, intellectuels et les citoyens à poursuivre inlassablement les interventions médiatiques et privées tendant à rétablir la vérité et à défendre la démocratie sénégalaise. Durant le rassemblement du 12, et à partir de cette date, s'agira pour le F-24 de se construire en une force dissuasive, rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix. Notre objectif est de, est de persuader les Sénégalais que c'est seulement en consacrant le triomphe de la vérité, conformément aux enseignements de nos religions et de nos traditions, qu'on parviendra à stabiliser une paix durable dans ce pays, à préserver notre harmonie ethnico-religieuse à améliorer les conditions de notre vivre ensemble. Notre mission est d'amener les Sénégalais à nous rejoindre de plus en plus nombreux, en ayant fini de comprendre que pendant 11 ans, M. Macky Sall n'a cessé de faire des promesses sans les tenir, qu'il n'a cessé de chercher à nous manipuler, nous intimider, nous sanctionner injustement et de nous en imposer. Par des actions pacifiques et légales, nous allons montrer à Macky Sall et au monde entier que notre maturité démocratique ne se réduit pas seulement à sanctionner négativement les élus déméritants au soir d'un scrutin. À cet effet, il s'agira de déconstruire le discours captieux des apologistes de l'aventure du camp, de battre en brèche les arguties et contre-vérités de ceux qui veulent nous faire, par exemple nous faire admettre que M. Macky Sall a présenté sa candidature pour un troisième mandat il est important de rappeler que le F-24 est né au terme d'un long processus de concertation, suscitant un grand espoir auprès des citoyens et un engouement certain de la part des acteurs impliqués. La charte signée par les membres engage ces derniers à s'opposer à la candidature illégale et illégitime, à, un troisième mandat de M. Macky Sall, à réclamer la suppression des articles et artifices juridico-politiques constituant des entraves à l'éligibilité de candidats, la libération des titres politiques et l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, apaisée et transparente en février 2024. Dans ce cadre, lf 24 invite les Sénégalais et les Sénégalaises et les Sénégalais, soucieux de la préservation de la liberté, à préparer minutieusement, méticuleusement, le grand rassemblement pacifique du 12 mai à la place de l'obélisque pour amener le président Macky Sall à renoncer définitivement à cette troisième candidature illégitime et illégale, à libérer tous les détenus politiques, à créer les conditions d'une élection présidentielle inclusive, libre et transparente en février 2024. Je vous remercie. Hein. peu le parce que soose bu ñu jox wolof la pour mu kii ko comprendre ba mel ni ñoom daw dangay nekk fi di déglu c'est un peu compliqué mais on va essayer euh, mbokk euh, conférence de presse bi force vive du Sénégal di amal tey jii li ko sabab mooy lancement wu euh, mobilisation bu mag benn ndaje bu mag a mag bi nga xamante ni peuple sénégalais mu ngi koy dëgmal ci le vendredi 12 mai 2023 incha allah fële ci place de la nation dañuy profiter rek ci jotaay bi pour jaajëfal bépp sénégalais sénégalais yi nga xamante ni yu fasanti ko tey ñu ngi toll ci lu toll téeméer ak que ñetti fukk organisation ak ay euh, personnalité indépendante yi nga xamante ni signé nañu charte F24 euh, ne ni bokk nañ ci sénégal yi nga xamante ni ci fiñ ci toll dañuy taxaw temm euh, pour xeex pour démocratie bu Sénégal xeex pour àq ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal mais surtout pour jóg taxaw ne ni troisième candidature bu fi amee mbokk yi Sénégal dafa toll ci ay guddi yu jafe mooy li tubaab yi di duppee nous sommes à la croisée des chemins te loolu dafa laaj taxawaay bu dëgër venant de toutes les filles et de tous les filles de ce de ce de ce pays ci jamono jii ñuy amal conférence de presse bii àdduna wërngal këpp ngi célébrer journée internationale de la presse ci ay bërëb yu fasantikoo ci àdduna nit ñi ñu ngi màggal liberté wu presse nit ñi ñu ngi màggal euh, liberté d'opinion nit ñi ñu ngi màggal seen taaru presse ak cër gi seeni nguur jox seeni journaliste ak seeni presse un peu partout waaye Sénégal fii ci Sénégal ci jamono ji au même moment Euh, coalition des associations de presse mu ngi amal fele ca maison de la presse Babacar Touré benn ndaje bi nga xamante ni euh, pour naqarlu la journaliste yi nga xamante ni nguuru Macky Sall mu ngi leen di xoqatal di leen tëj di leen jaay doole ci lu dul dëgg du yoon et tey jii nii ñu ngi ñuy yëgal balaa ñuy tàmbali conférence de presse bii ni journaliste Babacar Touré bi nga xamante ni ci ay liggéeyam lañu ko jàpp di ko enquête ay retour de parquet yu dul jeex tey jii nii jàkkaarloo na ak juge ñu mettre ko euh, nu mu tuddati ñu ñu yóbbu dossier information judiciaire mu war a dem kaso ci lu dul dëgg du yoon Babacar Touré bu ñu ko yóbboo rëbës walla ci beneen kaso fii ci Sénégal dina fa fekki yeneen citoyen yu taxaw yu am taxawaay bu mat sëkk ñoom it ci li ñu ne ku mel ni abdu Karim Gueye Karim Xurum Xaq di activiste di militant bi nga xamante ni la sël tort qu'on peut lui fii ci réew mi mooy bëgg réew taxaw temm senegal jaral ko lu ne ñu ngi ko tëj ci kaso bi dina fa fekkit ku mel ni nit dof muy artiste bu engage saa yu Sénégal laajee mu taxaw ñu respecté ko ngir taxawaayam ci réew mi waaye it dina fekk dina fa fekk ku mel ni Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye di doomu réew mi engagé politiquement nekk ci organisation politique jibal ay kàddoom tax ñu ne ko rab ci kaso bi waaye it dina fa fekk it Hannibal Djim bi nga xamante ni mu ngi bëgg yàgg ci kaso bi moom it ñu ngi ko fa tëj ak tant d'autres citoyens tey jii nii lu toll toll na ci ay téeméeru citoyens yi nga xamante ni ay détenus d'opinion lañu ay détenus politique lañu Macky Sall ak nguuram mu ngi leen xañ jant bi ci lu dul dëgg du yoon F24 mu ngi jaajëfal di encourager journalistes yi di encourager chroniqueurs yi waaye it di encourager intellectuels yi ak bépp aji bëgg réew bi nga xamante ni mu ngi xeex bés bu yàlla sàkk ci ay intervention médiatique am waaye it ci ay ci ay jéego yi muy teg pour que dëgg mu sax ci réew mi pour aar suñu démocratie bu ñu jógee rassemblement bi ñuy dëgmal incha allah vendredi 12 mai 2023 fële ca place de la nation bi nga xamante ni am na symbolique ndax gis ngeen en 2011 2012 ñi ne ci nguur gi tey àndoon nañu ak ñu bëri ci ñun Nous def fa ay rassemblement yu contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade avons ay kaddu yuñ fa am ñu ngi ci ay vidéo tey ñu ngi koy président Macky Sall ci jëm boppam ñu ngi gis image yu maire Gaddoom bi mu ñëwee Fou Malade bokk ci mouvement Y en a marre moo jox micro pour mu non à la candidature de Abdoulaye Wade donc ca place de la nation boobu ci lancé le démarrage du plan d'action force vive du Sénégal bi nga xamante ni dina tàmbali ay activité ay manifestation ay mot d'ordre yu fasantikoo yi nga xamante ni ñu ngi woo peuple bi pour que mu déglu saay su ne ak jamono ju ne li mu laaj ci ay activité incha allah F24 dina ko amal te dina ko fësal pour que Sénégal yépp ànd pour que ñu tabax benn force comme ni ko turam ni muy wuyoo turam force 24 benn force citoyenne bi nga xamante ni li koy lal rek mooy xeex pour que dëgg pour que euh, jàmm sax ci senegal waaye jàmm ji nga xamante ni day lalu ci dëgg liñ ci mbëbët nag mooy fexe ba euh, sénégalais yi xam ni ci suñuy taarix ci suñuy maam taxawaay yiñ fi amoon ci suñuy suñu aada suñu culture bañ jom ak dëggal jubal waaye ci suñuy diiné sax yi fi ne ak suñu yenn maam yi nga xamanteni ni muy catholique di chrétien am nañ fi taxaway am taxaway ci dëgg ñu xam ni li wara a mën a saxal dëgg rek ci réew mi mooy euh, li war a li war a mën a saxal euh, jàmm ci réew mi mooy dëgg incha allah loolu dinañ ci taxaw F24 dina ci taxaw avec toutes les forces vives du Sénégal pour que Macky Sall xam jeex na léegi peuple sénégalais diko subir di subir ay diglé yi nga xamante du ko respecter mukk waaye di continuer di subir ay manipulation ay lal ay dëgg sërëx yi nga xamante ci onze ans yi da koy dé lal à chaque fois et à chaque fois peuple sénégalais mom moy donne victime waaye que président Macky Sall mu xamné intimidation yi jeex peuple sénégalais doit tout subir Qui euh, a une action légale dans le respect des lois et règlements ou déterminer déterminé des actions massives pour les mobilisations mobilisation lay nous dinañu won ni Sénégal fa mu newoon ay doomu Sénégal fu ñu newoon nous fa suñu démocratie bi nga xamante ni nguur gi mu ngi koy gàkkal di ko nërmeelal que senegal ay doomam ay jigéen ak ay góor pare nañu taxaw di maintenir ce flambeau xeex pour que démocratie googu vitrine de cette démocratie en Afrique bi ñuy bàkkee que ñu mën a continuer di ko mériter loolu nag pour que ñu mën ko dinañu fexe ba ci suñuy action waaye suñuy kàddu

ñu xam ni loolu du li nga xamante ni dina jëme réew mi ci ci dëgg ci jàmm ak euh, lépp li jëm ci li ni mel dañuy jeexal rek di rappeler ni F24 dafa juddu gannaaw bu ay jigéen ay góor amee initiative di nasandoo di amal ay waxtaan ay organisation politique organisation de la société civile ay syndicats ay ay association ay mouvement ay personnalité indépendante waxtan di bolo di waxtan di juboo ci ay kàddu ba ñu teg li nga xamanteni mom moy euh, F24 bi té képp ku ci engagé wu signé na charte kéro bi ñuy lancé F24 ci résidence Mamoun waye tey yit bu ñu paree dina am ñi nga xamanteni ñu ngi fi dinañu signé charte bi pour engager au sein du FN4 xeex ba nga xamanteni article yi nga xamanteni président Macky Sall modifié nako ba mu permettre ko muy euh, di écarter ay opposants politiques waye ñu tollu ci guddi yi nga xamanteni amna yenen opposants politiques yi nga xamanteni aussi euh, ay article code électoral yi Macky Sall modifié taxna duñu mëna bok ci élection yi ñu jëm budé amuñu taxawaay bi bi waat waye bi ñuy signé charte bi dañu engagé wu ni dinañu fexé ba détenu politique yi nga xamante ni ay téméré téméré ñu ngi ci ay prison ak ay détenu d'opinion té nguur gi tegu ko fenn que ñu bàyyi leen ñu ñibbi ci seeni kër waaye it bi ñuy signé charte bi ñun ñëpp dañu engagé pour am taxaway pour que président Macky Sall qu'il ne fasse pas moins que ñenn ñi nga xamante ni nañ fi par exemple gis nañ fi code électoral consensuel à l'époque ñu dem ci ay élections en 93 ak yooyu waaye surtout mu organiser ay élections yi nga xamante ni day tegu ci dëgg mu doon des élections apaisées des élections transparentes yi nga xamante ni képp ki ci war a bokk di nga ci bokk enfin damay féddaliwaat woote bi nga xamante ni F24 mu ngi koy woote di woo bépp sénégalais bi nga xamante ni jàpp nga ni suñu démocratie mu ngi nermeelu ak suñu constitution bi nga xamante ni mooy suñu charte fondamentale bi ñu boole ñun ñëpp mu tënk ni troisième candidature munu fi ne que bépp sénégalais comme référendum bi ni ñu voté woon ba wii gagné amul benn sénégalais benn président bi nga xamante ni mun na def plus de deux mandats consécutifs en commençant par euh, président Macky Sall mom mis, bi muy engagé constitution bi diko dit wax démb maa ngi gis benn fiche bi nga xamanteni ci référendum bi ñu ngi les différents points yi nga xamanteni mom lañu la voter et ci kaw ñu ngi gis question wu euh, candidature et il était clair que à partir de réforme Bobo, que nul n'a le droit de briguer plus de deux candidatures commençant par mom sax mi nga xamanteni moy président Macky Sall di peuple sénégalais Inch'Allah, le 12 à la place de la nation bu 15 heures le rassemblement historique le ñu bëgg rassemblement bi nga xamante ni ay jigéen yu am taxawaay ay góor yu am taxawaay waaye ay quelque chose de très fort gis nañ fi M23 ou F24 b nous mu tàmbalee ñun M23 c'est plus massif donc le 12 mai Inch'Allah, pour que le président Macky Sall mu xam ni dafa ci à une quelconque idée de troisième candidature ndax baaxul ci réew mi et c'est pas conforme à suñu charte nous réew li mu que détenu politique yi mu bàyyi leen ci li créer les conditions d'une élection bi nga xamante ni day lan ci dëgg mu doon élection yu leer que ñi ci war a bokk yépp ñu bokk ci mu bañ am dëgg sërëx que ñu bañ a écarter candidat de façon injuste ngi leen di bu baax di ci wolof yi encore une fois merci beaucoup c'est bon C'est bon. Ok. Hein. Allô, c'est bon Ok. Bon te le stress parce que ça c'est ñu jox wolof la pour mu kii ko ko bu amee ñu mel ni daw da ngay nekk fi di déglu c'est un peu compliqué mais on va essayer euh, mbokk yi euh, conférence de presse bi force vive du Sénégal di amal tey jii nii li ko sabab mooy lancement wu euh, mobilisation bu mag benn ndaje bu mag a mag bi nga xamante ni peuple sénégalais mu ngi koy dëgmal ci le vendredi 12 mai 2023 incha allah fële ci place de la nation dañuy profiter rek ci jotaay bi pour jaajëfal bépp sénégalais sénégalais yi nga xamante ni yu fasantikoo tey ñu ngi toll ci lu toll téeméer ak euh, ñetti fukk organisation ak ay euh, personnalité indépendante yi nga xamante ni signé nañu charte F24 ne ni bokk nañ ci sénégalais yi nga xamante ni ci fiñ ci toll dañuy taxaw temm eh, pour eh, xeex pour démocratie bu Sénégal xeex pour àq ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal mais surtout pour jóg taxaw ne troisième candidature fi Sénégal dafa toll ci ay guddi yu jafe mooy li tubaab yi di duppee nous sommes à la croisée des chemins te loolu dafa laaj taxawaay bu dëgër venant de toutes les filles et de tous les filles de ce de ce de ce pays ci jamono jii ñuy amal conférence de presse bii àdduna wërngal këpp ngi célébrer journée internationale de la presse ci ay bërëb yu fasantikoo ci àdduna nit ñi ñu ngi màggal liberté wu presse nit ñi ñu ngi màggal euh, liberté d'opinion nit ñi ñu ngi màggal seen taaru presse ak cër gi seeni nguur jox seeni journaliste ak seeni presse un peu partout waaye Sénégal fii ci Sénégal ci jamono ji au même moment euh, coalition des associations de presse mu ngi amal fële ca maison de la presse Babacar Touré ben ndaje bi nga xamante ni euh, pour naqarlu la journaliste yi nga xamante ni nguuru Macky Sall mu ngi leen di xoqatal di leen tëj di leen jaay doole ci lu dul dëgg du yoon te tey jii nii ñu ngi ñuy yëgal balaa ñuy tàmbali conférence de presse bii ni journaliste Babacar Touré bi nga xamante ci ay liggéeyam la ko jàpp di ko enquête ay retour de parquet yu dul jeex tey jii nii ya jàkkaarloo naag juge ñu mettre ko eh, nu mu tuddati ñu ñu dossier information judiciaire mu war dem kaso ci lu dul dëgg du yoon Babacar Touré bu ñu ko yóbboo rëbës wala ci beneen kaso fii ci Sénégal dina fa fekki yeneen citoyen yu taxaw yu am taxawaay bu mat sëkk ñoom ci li ku ni Abdou Karim Gueye Karim Khouroum Khak di activiste di militant bi nga xamante le seul tort qu'on peut lui coller fii ci réew mi mooy bëgg réew taxaw temm Sénégal jaral ko lu ne ñu ngi ko tëj ci kaso bi dina fa fekkit ku mel ni nit dof muy artiste bu engagé saa yu Sénégal laajee mu taxaw ñu respecté ko ngir taxawaayam ci réew mi waaye it dina fekk dina fa fekk ku melni Basirou Bassirou Diomaye Faye Basirou Diomaye Faye di doomu rew mi engagé politiquement nekk ci organisation politique jibal ay kàddoom tax ñu ne ko ràpp ci kaso bi waaye it dina fa fekkit Hannibal Djim bi nga xamante ni mu ngi bëgg yàgg ci kaso bi moom it ñu ngi ko fa tëj ak tant d'autres citoyens tey jii nii lu toll toll na ci ay téeméeru citoyens yi nga xamante ni ay détenus d'opinion lañu ay détenus politique lañu Macky Sall ak nguuram mu ngi leen xañ jant bi ci lu dul dëgg du yoon F24 mu ngi jaajëfal di encourager journalistes yi di encourager chroniqueurs yi waaye it di encourager intellectuels yi ak bépp aji bëgg réew bi nga xamante ni mu ngi xeex bés bu yàlla sàkk ci ay intervention médiatique am waaye it ci ay ci ay jéego yi muy teg pour que dëgg mu sax ci réew mi pour aar suñu démocratie buñu joggé rassemblement bi ñuy deugmal inshallah vendredi 12 mai 2023 feulé ci place de la nation bi nga xamanteni amna symbolique ndax gis ngeen en 2011 2012 ñi ne ci nguur gi tay andon nañu ak ñu bari ci ñun ñu def fa ay rassemblement yu bari contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade ñoom ay kaddu yuñ fa am ñu ngi ci ay vidéo tay ñu ngi koy seetaan waye président Macky Sall ci jëm boppam

saay su ne ak jamono ju ne li mu laaj ci ay activité allah f dina ko amal te dina ko fësal pour que Sénégal yépp ànd pour que ñu tabax force comme ni ko turam ni muy turam force 24 ben force citoyenne bi nga xamante ni li koy lal rek mooy xeex pour que dëgg pour que euh, jàmm sax ci Sénégal waaye jàmm ji nga day lalu ci dëgg liñ ci mbëbët nag mooy fexe ba euh, sénégalais yi xam ni ci suñuy taarix ci suñuy maam taxawaay yi fi amoon ci suñuy suñu aada suñu culture bañ jom ak dëggal jubal waaye it ci suñuy diine sax yi fi ne ak suñu yenn maam yi nga xamante ni muy katolik di chrétien am nañ fi taxawaay am taxawaay ci dëgg ñu xam ni

waaye di continuer de subir ay manipulation ay lal ay dëgg sërëx yi nga xamante qui ci onze ans yi da lal à chaque fois et à chaque fois peuple sénégalais est il donne victime waaye que président Macky Sall mu xam intimidation yi jeex peuple sénégalais doit subir eu ay action You légal dans le respect des lois et règlements Why you déterminé des actions massives pour les ay mobilisation lay doon dinañu won aduna ni Sénégal famu ay Sénégal fuñu néwon fa batay suñu démocratie bi nga nguur gi mu koy que Sénégal ay ay ak ay maintenir ce flambeau pour que démocratie la vitrine de cette démocratie en Afrique continue à que nous continuer mériter pour que nous puissions, faire dinañu actions, ba ci action à travers l'organisation F24 personnalité indépendante yu F24 à travers sénégalais yu nekk ci F24 cadre la bi nga pour que jàmm mu mën a sax ci réew mi waaye jàmm bu lalu ci dëgg dinañu fexe ba ñi nga xamante ni tey ñu ngi théoriser mbirum euh, troisième candidature Macky sàll ñu xam ni loolu teguwul ci dëgg ñu xam ni loolu du li nga xamante ni dina jëme réew mi ci ci dëgg ci jàmm ak euh, lépp li jëm ci li ni mel dañuy jeexal rek di rappeler ni F24 dafa judd gannaaw bu ay jigéen ay góor amee initiative di nasandoo di amal ay waxtaan ay organisation politique organisation de la société civile ay syndicat ay ay association ay mouvement ay personnalité indépendante waxtaan di booloo di waxtaan di juboo ci ay kàddu ba ñu teg li nga xamante ni moom mooy Euh, F24 bi té képp ku ci engagé wu signé na charte qui bi ñuy lancer F24 ci résidence Mamou waaye tey yit bu ñu paree fii dina am ñi nga xamanteni ñu ngi fi dinañu signé charte bi pour engagé wu au sein du F24 xex ba nga xamanteni article yi nga xamanteni président Macky Sall modifié pour ba mu permettre ko muy Euh, di écarter ay opposants politiques waaye ñu toll ci guddi yi nga xamante ni am na yeneen opposants politiques yi nga xamante ni aussi euh, ay article code électoral yi Macky Sall modifié tax na du ñu mën a bokk ci élection yi ñu jëm bu dee amuñu taxawaay bi bi waaye it bi ñuy signé charte bi dañu engagé wu ni dinañu fexe ba détenu politique yi nga xamante ni ay téeméeri téeméer ñu ngi ci ay prison ak ay détenus d'opinion te nguur gi tegu ko fenn que ñu bàyyi leen ñu ñibbi ci seeni kër waaye it bi ñuy signé charte bi ñun ñëpp dañu engagé wu pour am taxawaay pour que président Macky Sall qu'il na fasse pas moins que ñenn ñi nga xamante ni organiser nañ fi par exemple gis nañ fi code électoral consensuel à ñu dem ci ay élections en 93 ak yooyu waaye surtout mu organiser ay élections yi nga xamante ni day tegu ci dëgg.

troisième candidature munu fi que bépp sénégalais comme référendum bi lu ñu voté nous ba gagné. gagné amul benn sénégalais benn président bi nga xamante nous mun na plus de deux mandats consécutifs en commençant par euh, euh, président Macky Sall moom mii bi muy engagé constitution bi di moments, wax démb maa ngi gis benn fiche qui nga xamante ci référendum bi ñu ngi def les différents points yi nga xamante ni moom la ñu voté et ci kaw ñu ngi gis question euh, candidature et il était clair que à partir de réforme Bobo que nul n'a le droit de briguer plus de deux candidatures commençant par le président Macky Sall sénégalais le 12 à la place de la nation ou 15 heures rassemblement historique le rassemblement bi nga Aïda, ay ndaw yu am taxaway ñew keroog mu doon quelque chose de très fort gis nañ fi M23 waye F24 bi ni mu tambalé ñun ñi ci M23 xam nañ ni c'est plus massif donc tàmbali le 12 mai la pour que président Macky Sall mu xam ni dafa war ci li renoncer à une quelconque idée de troisième candidature ndax baaxul ci réew mi

bu ñu jullee ba pare ñun ñëpp ñu tase ba xamal ni que Macky Sall moom moo dëkk bi république lañ nekk nekkuñu ci royauté appel baa ngi noonu wóolu ñu ñëpp tous les Sénégalais on va passer aux questions une liste sera ouverte ou dans une télé de la place qui est emprisonnée alors qu'elle est à 7 mois de grossesse. Il y a d'autres citoyens qui se sont exprimés sur la marche de notre justice. Des citoyens qui s'expriment sur la gestion du président de la République. De quel droit ils ne peuvent pas s'exprimer sur la perception qu'ils ont de leur justice Et ces citoyens, ils sont à Rebus, ils sont au Camp Pénal, ils sont à Sébicotan, ils sont un peu partout. C'est ça qui nous importe. Ce qui nous importe aussi, c'est ça, la, la, modification de ces dispositions du code électoral à travers les articles euh, cités dans euh, euh, le texte, la déclaration luminaire, pour que ça soit modifié au plus vite, qu'on aille vers des élections où, à tort, on n'écarte pas des candidats qui soient gênants. On l'a vu avec d'autres, Karim Wad et, et, et, Khalifa Sall, et ces articles subsistent. Donc il faut les modifier. Et enfin, exiger à ce que Macky Sall puisse tenir des élections qui soient libres, transparentes et inclusives. C'est ça qui nous importe et c'est ça qui importe au F24 à l'heure où nous vous parlons, c'est de faire cap sur le 12 mai, Inch'Allah, à travers le lancement officiel du plan d'action du F24 qui commence par un grand rassemblement pacifique, massif, mais déterminé, et toutes les actions qui vont venir après. merci laaj ci mbirum dialogue ba dialogue xamuñ ci dara li ñuy wax mooy de toute façon dialogue ñun euh, intéressé wuñu seen sa dialogue la li ñu intéressé mooy li tax tey ñu nekk fi mooy woote bi nga xamante ni f quatre woote na ko le vendredi 12 mai incha allah à la place de la nation di woo citoyen sénégalais yëpp bépp sénégalais bi nga xamante ni jàpp na war nañu aar suñu démocratie suñu état de droit bépp sénégalais bi nga xamante ni jàpp na ni suñu constitution Macky Sall daf ko war a respecté ba mbirum troisième candidature bi mu teg ko ci suuf génn wax ak sénégalais yi ne ni comme ni ko constitution bi waxee comme moom ni mu ko waxee waxaat ko bind ko ci téere troisième candidature du ko jéem ndax baaxul ci réew mi ndax bu ko fi yëkkatee ay rek la fiy indi comme ni mu fi indee ay en 2012 comme ni muy indee ay feneen ak feneen ci Afrique que ñu mobiliser wu pour que Macky Sall mu dellu ci ginnaaw mais ñu mobiliser wu aussi pour que sénégalais yii nga xamante ni muy ay journaliste maa ngi wax Babacar Touré moom moo ci mujj taxaw tey ca justice auprès du juge ñu yóbbu ibbi information judiciaire ne ko ràpp ci kaso bi gannaaw moom am na benn soxna bi nga xamante ni mu ngi ëmb ba diis ñu ngi ko ne ràpp ci kaso bi les journalistes yi ñu euh, maison de la presse au moment où le monde entier célèbre la journée internationale de la presse di de la presse de respecter de ko jox Nous, ñun journalistes yi ñu ngi maison de la presse di ñaxtu ndax ñu ngi dans l'exercice de leur travail Nous ngi leen di dans l'exercice de leur travail ak yeneen ak yeneen sénégalais yi nga xam ne dañu jibal seen kàddu jëm ci suñu justice ni muy doxee mu doon justice bi nga xamante ni pouvoir da koy téye di ko dóore citoyen bi nga xamante ni day jibal kàddu bi àndul ak Macky Sall loolu pour que mu tàkk ñun loolu moo ñu soxal ñu ne incha allah le 12 mai ñu ngi woo sénégalais yépp place de la nation tàmbali lay doon mu doon rassemblement bu historique te ñu ngi ciy woo sénégalais ci fulla ak fayda ndax comme ñun niñ ko waxee li ëpp ci sénégalais yi ñu ngi leen di dégg ci kër yi ci quartier yi ñu ngi leen di dégg ci presse bi ñu ngi leen di dégg fépp li leen soxal mooy lii ñu wax nii waaye leneen soxlaalu leen donc loolu laa amoon ci li may wax et enfin rassemblement bi que Macky Sall que Sénégal mu jëm ci ay élections yi nga xamante ni day libre mu doon ay élections yu transparent mu doon ay élections yi nga xamante ni du ñu galgal kenn du ñu faagaagal kenn ñun loolu moo ñu soxlaal ci fi ñuy wax ak yéen amut leneen lu ñu ñor lu dul loolu en tant que plateforme F24 jaa ngeen jëf